atia jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku enn bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek ku nekk sa wàccuwaay amaat euh, lii di kontaan ak mbégte bu baax na comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam di ci yaatal bu baax a baax ba ñu ñu topp mën cee jëlee lii di njëriñ lu kawe seen jort aja nee naa leen ki may dalalaat tey doonatul koo xam ne dañ koy présenté ti ndax xam nañ ko bu baax baax ci biir milieu bi rawatina ci diggante ñaan ak paj bi nga xam ne mu ngi koy def ba ñu bëri rafetlu ko kooku mooy sëriñ moo du Ndiaye mu sëriñ saliw dinañ waxtaan ci ponk yaatu ci xam-xam waaye xew-xew jamono dinañ ci yaatal bu baax a baax lii lépp laata ma ciy ñëw sama biir programme kilifa gi damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan wi bisimilah. waaw suñu seex ñu ngi delloo nuyu bu baax ñu ngi lay siyaare bu baax di siyaare eh, suñu amet mi ngeen àndal di ñaan ci kàttanug suñ Tuubaa suñu yaakaar saa borom def ci réew mi jàmm di siyaare waa réew mi yëpp bàyyiwunu kenn ba ci waa bitim réew képp kuy dégg suñu kàddu. wala ngay safoo site bi di 221. ñu ngi lay nuyu ci kàddu Serigne Modou Ndiaye moom Serigne Saliou. di jàmm yi ak client yëpp rek nga xam ne ñu ngi dégloo fii ci 221 bi incha allah. jërëjëf Serigne Modou Ndiaye moom Serigne Saliou ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaanee ginnaaw seen set yooyu tàntaan danañ ci kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax. atia dinañ waxtaan ci juróom-ñeenti ponk waaye juróom-ñeenti ponk yooyu dinañ ko xaaj ñaari pàcc ci gënte ñaan bi nga xam ne saa su nekk yaa ngi ciy def résultat ñu bëri lu ko waaye paj bi nga xam ne yaa ngi ci def résultat yu am solo bëgg naa ñu del siwaat ci xew-xewu jamono du doon leen mu di euh, situation réew mi ni mooy doxee ak li fi xew lépp ci ku kuje langue politique bi jëmm ji nag su ngeen ko dégloo xam ne di ngeen dégg xam-xam waaye rek di ngeen fi dégg révélation yu solo am na mu waxoon ci président Ousmane Sonko dinañ ci yaatal bu baax a baax xam naa ko déglu di nga dégg ba ci Karim Meïssa John euh, mën naa ne ngeen baal ma wàdd dinañ ci yaatal bu baax a baax li ci kanam rawti bët euh, président Ousmane Sonko mu ngi ci kaso bi ba léegi ni ñuy wax ci yaram bi gis na lu yéeme nag topp leen vidéo ba mu jeex kilifa gi daa foo xam te foofu laa namoon ñu tàmbalee mu bokk ci mbiram seet bi nga xam ne yaa ngi koy def ñu bëri rafetlu ko. waaw sëñ Cheikh seet moom yàlla dogal na képp ku yàlla dogal ñu jëflante ci muy réew mi ak bitim réew ñëpp kenn nattab léewuti mën a seetuk sëñ Modou njaay mhm. loolu nag li yàlla dogal mooy dama cee boolewut ak làmbatu. waaw te man yàlla dogal na li may seete dafa dafa leer mhm. yor naa ci ay façon yu seet lu bari kenn ku ne xam ne ne adat seet la gu wér mhm. day tege ne am na ci looy looy seet noonu ngay jaare xel mu nujjoom da nga koy xam mhm. doo ko mën a seet xam tabian nit ki biddiwam saraxu tabian ni mu amee ni la saraxu biddiw amee kawaakib ak buróoj am bis am heure lii lépp ci xeetu sarax la doon yoo xam ne bari na ci ñoo xamante ne bi ñu ngi ñaan fu ne ñu di mënuñoo gis résultat kale kale ba sarax la man bari na ñu may jëflanteel fii ba bitim réew ñu ci bari mhm. lu ñuy dugg dañ may woo ba leen seetalee sarax dong la ñuy génne darajay alquran bari na ci ñoo xam ne liñ biñu ma contacté liñ ne moom la ñàkk ci million ci sëriñ kenn xamul ni mu toll ba ma leen seetalee génn leen seen sarax am na ci ñoo xam ne ko génnee fii laa ko waxee woon mhm. ñu wooma seen xol sedd ci fii laa leen koy waxawaat te ñoom ñu ngi may dégg xam nañ lii may wax loolu nag li ko waral mooy xam-xam da nga xam falak bi ni muy tegoo mooy fukki weer yi ak ñaar ci at mi xam bis yi ni muy tegaloo xam semaine yi ni muy tegaloo bis bu ne am na biddiw bu ko moom nit ki nag at mam judd weer wam judd biddiw ba ca taalixoon mhm. bis ba mu judd bis ba ko moom mhm. ca la biddiwam nekk ci ngay mën a xamee saraxu tab bi am xam saraxu biddiw am xam xawaakib ba xam buróoj ba ah. xam heure ba muy saraxa boo ko bëggee ñaanalit mhm. loolu faaw nga xam ko waaye du nit ki day ñëw rek nga tañaxu ne ko demal seet beneen bi ci des seetu ramlu ramlu sées bunt yi nekk ci doomu aadama yëpp li nga passé ci si ginnaaw nga dund ko ak fi nga toll nii ak li ci sa kanam lépp loo ci xamante la wax la koy fànq nga génn sarax yi doon na lu gàllankoor luy ñëw am ay tak-tak dana la wax la koy fànq daan la wax la ko jàpp na ci kàttanu yàlla lii moom bu may neexee yëkkati sama loxo ne adduna gi ñu nekk gisuma ku ma ko fi dàq am naa ci droit ndax it ñi may jëflante ak man ñun d'accord nañ ko te man ñoon dong ñoo ma ci intéressé insha allahu mbokk yi jëmm ji seet moo ma ci doy ndax mu ngi ciy def résultat yu màcc ayib waaye dama ñëw ci li nga xam ne mëninam la kum la digal nga génnee ko nam ko bëggee rek xamale sa mbir yëpp sa bal dina tàkk njëriñu sarax secret sarax ak li dëxañoo ci biir laa bëgg maanaam sëñ Cheikh sarax mhm. nit ki mën na laa bindal lépp li ne ci àdduna lépp muy muy doon luy dox ci dindi ay gàllankoor wala muy dox ci ubbi mhm. te bu sarax ba muy lu wér di alxuraan te bu sarax ba ñëw du sotti ñi may jëflanteel man xam nañ ci dara te man ku képp ku ma ne limal ab sarax ne nii la boo ma ko yónnee man mm. vidéo yaa ngi fi bu ma koy def ñoo koy ànd bu may dem di fay ñooy ànd bu dee luñu gàtt bu ñuy tëral bu ñu koy rendi diw bi mm. sàngam heure tel ñi ngi nii sa liggéey ñi ngi koy liggéey amul kenn a envoyé xaalisam la may man fi mu toll nii tembe ma xamal mm-hmm. boo ma fayee téeméeri sab sarax doon cent mille bu sarax ba génnut du ma la liggéeyal ndax damaa bëgg bu ma bu may lekk lu leew laay lekk al alquran laa yor turu yàlla laay liggéey sama njaboot lii ma nekk dama leen ci bëgg a yar bu ma fi jógee pousse bi du réer na ko samay waajur defe woon ndax it doxuma ci ay xëram doxuma ci sulmaani yi nóoraani yu laay dox turu yàlla waxi yàlla jëfi yàlla lépp fi am moo tax nag man képp ku seetal dama wax sarax bu sarax yi génnee boo ma ñaanloo ñu liggéey waaye am na ci ñoon ñi ngi jokkoo sarax bu génnee lañ doon lijjanti ko day lijjanti ko ba ñaanlu duñ ko def te ñi may dégg nag fi mu toll damay sawar ndax boo yoree njaboot loo teggee ci nit am na foo koy teg moo tax sarax am solo waaye man nag bu ma du doon ginaar doon laa lay laaj te bu ma la koy te bu ma la koy defal ñoo koy ànd incha allah kontaan naa ci yow jërëjëf sëñ Modou Ndiaye mu Serigne Saliou loolu am na solo nee naa leen euh, damay kontaan dalal ko ndax ca xam-xam ba ak baatin ba aca damay dox wéel jàll ci beneen ponk ñëw ci ubbeeku ubbeeku bi ngay def nit ñaa ngi la koy jëwee hop ak ko mos de wóorut moom sa ubbeeku ko sëñ Seex man maanaam <clears throat> ubbiku dama cee yor ay façon waaye fan yi nii tamit moom bi nekk atop bi xew yi nga xam ne moom maa ko yor li laa fi la si at xaama min jooyin wa amano min xawfin waxi suñu borom la du samay wax juróom-ñaar juróom-ñaar fukki li ilaa aay bu ne am na lu ma dugal ci xeetu talsam su ma paree am na mu xammasu bayit xaal bu may dagg def ca yama cee def samay mbir maa ngi wat ci alxuraan lépp loo bëgg looy wut looy wut di ko sàkku mu tëla amal ci loola cof sax cof ci nangam ak nangam def ca am nga ci am danga ci bari la xam nga sëñ seex yaram bu setee loo wuti am ko ubbiku ubbiku mooy lépp man nag boo bay ubbiku doo ñëw rek ma defal la ubbiku boo ñëwee ne ma ubbiku laa bëgg dama lay consulter nga génn say sarax ma liggéeyee la raxas sa yaram ndab ba mu leer ma ne benn gàllankoor néewut ma jox la loo xam ne sa yaram day neex buntu buntu boo fëgg mu ubbeeku defal la kaaraange goo xam ne maanaam insha allahu taala lu jógut suñu borom fa la lay bàyyi ndax boo xasee ba ubbiku léppay ñëw te am na làmmiñ ñoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu bët yoo xam ne lu ñu teg seen bët loola yàqu moo tax ni ubbi ko amee ne la kaaraange di amee waaye lépp nag suñu borom def na kaaraange moom course yi maa la ku la liggéey dem bàq ya waaw course course yu course yu daal laay soxla oh. liggéey ci lim lim ba ma ciy liggéey ubbi mim ya dugal ci tur ma ci dugal taalib mat loo mu jeex ma dem toog nee hmm. darajay alxuraan juróom-ñaari fan nga koy nga koy joowoo képp koo ci xamante ni bii dem na ci sërëm di la rëdd du ko ah, nettali te adduna si nag fexe ba mucc lu ci waay dugg akuk nga ci génn akuk neen ñëpp yéen ñëpp jàmm boo ko defee am jàmm ko deful nag doo am jàmm fi mu toll nii tamit gone yi li ñu na ñëw ci yow fekk bëggu la waaw te nag suufu bu sutantee dañ koo jal yaram bu neexee loo yóotu am ko ñu bari ñu ngi dugg ci mbir muy échec di yaakaar muy tas ak ngay liggéey xaalis bi mun ta daje gis nga loolu maa ngi ci tobb yu garaaw buñ ci àggee ci danaa la leeral waaw ngay liggéey di téye xaalis bi di dem ginnaaw nga yaakaar muy tas maa ngi ci sunguf soo xam ne tobb goo xam ne garab yi ñu ci liggéey yi ñu ci composé maanaam euh, boo ko fekkee fi fi mu wadd mètre ak aaya alxuraan yi ñu cee mooñaale ak talsam ya léegi loolu nag sëriñ si tamit maa ngi leen ci woo képp ku ci soxla boo ma contacté danaa la teg ci yoon ba nga am ci tobb yooyu am loo liggéeyee tobb gu waay bën a bëgg rek boo ma contacté da nga ci am ba ah. waaw man nii laay liggéeyee incha allahu kaaraange lépp ci aw yoon laa ko teg xool consulté la nga war def ma wax la ko nga def ko boo ko mënta def boo na ko joxee ñu def ko mhm. bon pare buñ ci liggéeyee insha allahu taala yaa may woo sant waaye beneen beneen version ma ko am te ba ma dalee ñaan ba tey musuma dégg ku ne ma la nga ma defal gisuma ko wala dugalal naa la sama xaalis woo la jotuma la du am jëlal rajo bi nga def nga def interview fu la neex oh. international ku ma masa woo dugalal ma xaalisam boo ma wooyee jotoo ma mhm. fekk damaa jàpp suma paree maa lay woo ku ma mas a yónnee xaalisam ngir ay ñaan foo mën a na ci bitim réew fekk na la fa waaw noonu la sama mbir demee heure boo ma woowee jot ma jërëjëf jërëjëf sëriñ ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leer lu am solo acca dañuy dox ba léegi wéyal nee naan nee naa leen la ko suñu borom dénk moo bërito yaatu mel ni géej car macha allah acca ku ñëw mu compal la may la rawatina sëriñ si sax ubbil na leen buntu bi dama ñëw ci noob yi daa mel ni sa sa mbokk sëriñ si dañ koo yombal de dafa yomb noonu noob maam noob moo gën a jafe ci lii ñuy def nii hmm. bis bu set ma di ko wax sa ginaar gi nga yor ci sa biir kër gi hmm. boo ko bëggee jàpp da nga koy dàq jeex na waaw léegi jamono jii nag kenn ba wutut sa bopp fi ne ñëpp ñëpp a ngi ñaanlu koo bëgg a jàpp hmm. ay caaxaan jàpp ko de benn hmm. nopp moom da fi dégg ku fi nekk di woote na la 24 heures weddiwuma leen waaye nopp daal moom nopp daal moom boo ci bëggee dox te xamoo xilmu xawaatim xilmu nujoom xilmu xaraf ilmu xuróof mhm. ilmu xawaatim ilmu nujum boo ko xamee moom koo ne danaa ko jàppal diw ci nopp war na koo gëm mhm. ndax nopp am na ay alxuraan yooyu jël am na tur yàlla yooyu jël boo ko taggee taalib mëtloo boole teg xam bi diwam xam xam bi ngay def ci tapo bi mhm. ba nga koy jox mu sangu ba muy suul xam heure heure bi diw bay jóg mëtloo ba nga jóg toog di ko liggéey maa ngi waat ci alxuraan doo ci liggéey lu esat xaati mag ñi nee nañ mooyul ma sëriñ bu ko xam te ñun fi ne li ko dala ci mu salisu xasaali mu salisu kunti yi mm-hmm. mu rabban mm-hmm. mu xammas ala zeynab suratu daaxil jalbul muhabba yooyu yëpp benn bu ci nekk rek dalee nañ ko fa mu war a dalee ba fa mu fee ci am njàng xam-xam nag daa doonatul lu ñu làmbatoo woote nag fi ne yomb na ku mu neex dajale say béjjën baa say këll mm-hmm. waaye xam-xamu azrar akum njibar dañoo wute lasaraar moom ab jullit moom la war a def moom la war a laalit muy alquran turu yàlla wax yàlla jëfi yàlla garab kurus alquran xeeti xawaatim yi nag boo ko xamee bu ci nekk mhm. eh, nañ ciy teey ndax am na ci ñoo xam ne kamaatara ci la ñuy dox te kamaatara day tëj doomu aadama mhm. fekk ay xaatim ñu ne la ci li lay dox rek nga ñëw di copier di def du noonu nit ki dangay nga jël turu yàlla ak ay alxuraan ba tëgg ci xaatim ba la nga bëgg a tëgg mhm. jël taalib ak madlo dagg ko dugal ci biir bu dee bayta xaal la nga def ci bayta xaal ba jël jumla ba dugal ca oh. xam kasra ba fa muy duggee waaw bu dee bu bu dee bu dee musaalu su xasaali ñëpp kii nañ ci ne kasra ca kii ba lay duggee baytu nangam ba waaye am na ci beneen baytu boo xam ne dañ dañ koy dañ waaw am na ci foo xam ne te loolu li koy waral mooy mhm. kasara bi fi muy duggee xaj na ñëpp xam na foo koy dugalee foofa lay foofa day tax xaatim gën a gaaw te loolu lépp am jàng koy waral man mii di wax yoon yi lu ma jàng ba xam ko fi ne bu doon dox ci deux jours kasara ba boo ko dugalee foofa mhm. du mat du mat benn benn fan day tax xaati xaatim bi gën a gaaw loolu nag xeeti jàng moo moo tax nga xam ko te Moussa Aliou Soxna Sall ne ni nga koy gis moom daa am sax tërbiye pour ma gën laa déggal rawaxaan yi moo tax lépp lu ci waaye mën a dugg sëñ Cheikh na ànd akum njàng xam daal xam daal mooy lépp waaye taño ko daal moo sottalut dara man nag lépp lu may dox lu may seq ak doomu aadama sama diggante ak sama borom boo ma seetloo ma seetal la seet gu wér wax la lu wér boo ma génn looy sarax ma génn ko boo ma liggéeyloo ma liggéeyal la nga sant ci yàlla te nag ñaan yàlla gi ak génn ci internet naa ngi ciy bëgg a yàgg kenn mosumaa yóbbu waar kenn mosumaa awaaye fen taf fen na ma damaa lekk sab xaalis te kanam la jëm lu ma duggit lu ma man lay doon ci kàttanu yàlla insha allahu taala damay kontaan ci yow sa jëmm yu mel ni yow damay sawar di jëflanteeg ñoom loolu moom kontaan naa ci bu baax a baax lépp looy def jubal moom tawfiix rek nga ci am aca waaye damay am ñoo xam ne dañ may dikkal di may di seen soxla ñoo xam ne dañoo am ay hectare ci suuf di koy jaay waaye njaay mi day xaw a tembe ak ñi nga xam ne ñu ngi parking oto bëgg koo jaay mu mu jar te yow mii maa ngi dégg ñu lay jëwee lu garaaw ci mbiru yooyu noonu ñëw si sëñ Seex loolu du man du du xam nga li tax maam lu ne fàng kenn du ko jax fii toog naa fii bu fekkee ne fii ci dëkk bi la juróom-ñaari suufi marché laay soxla guddig alxemes laay ci liggéey li ma ci liggéey xëy di àjjuma ci suba teel ga bu la neexee sa kër nga ma yóbbu ma fanaan fa liggéey li ma liggéey guddig àjjuma nga yóbbu ma ca terrain ya ma taxaw fa wis fa suuf sa def ca la ma cay def wan ko ginnaaw bu boobaa yaay tànn ki la koy jaay fii ba mbuuru ngapparu ñiy jaay suuf ñëpp koo ci contacté woon tey sama numéro la lay jox toog naa fii laa la wax fii ma toog di wax ak yow nii mhm. kër goo xam ne maa ngi koy jaay France bi ma génnee sarax yi bagage yi war a dem tey jii lañ fi jël si bagage yi sànq waaw toog fii defar dem ñu kii ma toog liggéey li may liggéey kër ga jar loolu moom ma ci sut boo gisee koy jaay mu tëko bu ma contacté ma jaay ko ci kàttanu mhm. yàlla ak lu mën a am ci at mhm. dafa am gàllankoor yi ci nekk am na suuf yoo xam ne dañu koy miinee borom du ko mën a jaay am na ci yooyu rab da ciy nekk léegi nag bu boobaa da ngay da nga koy xool ba xam li xew nga xool ba xam li xew nga ko oh. muy parking oto nga yor oto moomu tëye génn say loxo bu ma ci paree rek mu jar ci kàttanu yàlla insha allahu taala ku ciy werante boo ma wooyee boo ci yore suuf si war a jaay boo ko yoroon fukki at boo ma contacté ma jaay ko jërëjëf sëriñ Modou moom sëriñ Saliou mu ngi noonu kon ñëw na ngir faj seen i ajo yéen ñi am tawat yooyu noonu saa su nekk da ngeen di jaay dara muy xaw a tàgga témbe wala ngeen bëgg am yoo xam ne day gën a kawe seen jort numéro bi mu ngi noonu office suufu baar leer nañ woo ko mu jëflante ak yow ba soxol sedd guy ah naa ñëw ci beneen mbiram tukki daa mel ne dafa xew de voyage waaw sëñ Cheikh mbiram tukki moom xew na ñi bëgg kayit bari na fii ma toog di wax ak yéen ñi ne bitim réew ñi nga xamante ni yàlla dogal na ba ma génnee ñu sama génn fii amuñu papier am na ci ñooñ màggal si nañ te am na ci ñoo xam ne ay kayit yi ngir liggéey affaire ne bitim réew bëgg a liggéey sa liggéey di yàqu moom boo ma contacté insha allahu taala foo déposé ñu jël la loolu moom maa ngi ciy def résultat yi doy waar waaw doy waar nga ne bitim réew bëgg kayit wala nga bëgg liggéey di déposé mm-hmm. boo ma woowee bu ma la waxee saraxee booy dem di am liggéey loolu man maa la ko bu dee ne affaire tukki visa fan yi xam nga nu ma ciy doxee bu ma la xoolalee ga def say sarax gratuite li ma koy liggéey gratuite laa koy def dama koy def addee fi ne nii fii may wax ak yow nii Nicaragua Nicaragua bari naa fa ay ay clients yoo xam ne ña nga fa toog jaaree fa dem Amérique barke alquranul karim ñoo xam ne sama bun sama biir kër lañ waaje dem ña nga biir Amérique ma ci ku àggut fi mu toll nii nag tamaa toll ci ku ma woo ma wax la say sarax nga génn ko boo ñëwee li ma lay jox nga di ko utiliser gratuite laa koy def barke Serigne Saliou Mbacke dama koy maye gratuite ma la ko jox la bagage yi ngir ngir tukki yoon bu baax gratuite laa koy def loolu moom ku ci werante rek woo ma ma teg la ci nga ñëw bu ko defee ma wax la ma nga def ko ma jox la nga dem ba xam na nga dem wala li may liggéey mooy yoon woo mën a jóg da nga àgg ak jàmm incha allahu taala te buñ ci déggantee lépp leer moo tax ndam wuma man dawuma daayuma boo dikkee sama bunt boo fëggee maa lay ubbil amu awuma intermédiaire boo ñëwee sama kër boo fëggee maa lay ubbil téléphone boo wootee mën nga jot direct waaw man am loo xam ne doxuma ci man damaa ñëw laabiré ngir partager doomu aadama yi li ma yàlla xamal waaye lu nag suñu borom ma ko ci defal te lu ma lépp ma ci wax ak doon loolu mooy li ci nekk incha allahu taala waaw jërëjëf aja tey ma ñëw leen ci li nga xam ne xam naa yéen ñëpp bëgg ngeen ko ndax jafe-jafe ak li sonal nit ñi bëri na mu di cuuraay bu yéeme bi nga xam ne yaa ngi koy def mu di cuuraay rab seytaane ak leneen ak leneen loo xam ne li li muy jëriñ di koy faj bëri na waaw sëñ Cheikh xam nga li la ci wax mooy xam nga sànq maa ngi ne la fii waxi yàlla jëfi yàlla turu yàlla gis nga lii ñun dañoo am kilifa ci wàllu lasaraar lii ngay seen ma ngay dégg ngay gis eh, pël bu daan yor ñetti ngiseem gu xonq gu ñuul gu weex di ci tukkal àdduna la daan yor man bu ma neexoon yem ci yu dong te lu ma bëgg dama koy am lii mooy tobb waxuma ay sunguf yi ngay dem jënd sunguf fee fee dem marché jënd fee wala nga dem jumaa ja wecce ko sa sunguf ñëw teg bu ci nekk mbuusam boo ne bu ñu waxee ndax yiñ composé da nga naan déedéet te tobb la mooy garab yi sax ci mag ñi bu dee wàllu ubbi da ngay comp def def tobb mooy ci kaw garab mooy nga dem comp def def xorom def suukar nga ubbi ko laal fa saase bu dee luy dindi fa saase ñun nag moom la ñuy jël boole ko ak alxuraane yàlla ji xawaati mi suñu borom borom yii ak turu yàlla wii lépp la moo tax man la fii dara génn fi alxuraan turu yàlla wax yàlla jëfi yàlla tobb gi ma lay wax ci wàll rob mi ngi nii ah, rab rab saytaane dëmm akuk ubbiku akuk jibar mi ngi nii tobbuk tàlli lañ koy wax tàlli tàlli dangay dem sangu amul def dara tomp ñëw suuru suuru ba mu dugal lu mu fekk sa loo takk boo takkee galaaj la koy tekki booy suuru loo takk da koy yàq yemuma ci nag yema agsi naa ci ba ci sëriñ si képp ku ko soxla boo ma contacté danaa fexe ba nga am ci nombre boo ci bëgg da ko ci am kii mooy tobbug tàlli tobbug yaakaar muy tas mi ngi nii loo yaakaar mu tas loo dugg mu yàqu xaalis buy daje sa loxo nga naa xaar ba suba mu échec daa am nag lu ñuy bind ci alxuraan boole ko ak moom loo amate bu bu fa mu nekk bu fa jege yaa fa jëlee man maa la ko wax yeneen ni ci des yëpp ay tob bi ubbeeg tob bi am jëkkër tobb laal am jëkkër laa la wax yaay tànn yaay tànn yaay tànn lii may fi may wax nii xool fi may wax nii yooyu kaay ma ci réglé nit ñëw ne fii di jël si ndaw soo xam ne Allemagne la nekk eh, lu mat 15 ans ngi nii amul jëkkër ba ma ko sangatee ba mu am jëkkër matul weer ki ko doon jël si gaay bi ne ma sëñ Modou man nga maa sangat rakkam la altine bi passé la dégg alxayri te a ñuy màggal fii la jël si ay bagage moo jóge fee dem màggali ñëw altine bi passé lañ ko takk topp bu am jëkkër képp ku jëkkër te boo ñëwee ma xoolal la nga war a def ginnaaw gàllankoor boo ñëwee ma jox la ci topp gi am na topp goo xam ne kilifa bayre ubbikaay lépp ci am te day ànd turu yàlla ak wax yàlla jëfi yàlla loolu mooy li fi nekk moo tax xeeti ay cuuraay ku rab sonal mm-hmm. bëtub guddi mm-hmm. saytaane mm-hmm. buñ ci jokkoo nga génne say sarax bu ñu la doon takk ci mbedd bi ngay daanu nañ la yeeyu bu ñëwee bu ma la suur bu ma la sangatee suur la boo ñibbi yaa yóbbu sa bopp waaw loolu moom loolu moom lu ma xamut bokku ci teyit eh, eh, maa ngi nii bakkan lay laaj mi ngi nii lu ne fàng kenn du ko jeex lii moo ko alxuraan ay ànd gépp topp gu ma la fi wax fii xaqiqa la amuñ ci lu wérut loo ci def gis ko ci kàttanu yàlla foofu nag ca laay dox lépp lu may dox ak nit rek day leer incha allahu taala jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Modou Ndiaye mu sëriñ Saliou jërëjëf nii la euh, ñaankat euh, di nga saako xam-xam di ngay gën di xóotal yëpp waaye am bagage doon na ci loo xam ne lu am solo la nee naa leen garab la leen wan de tobb lu yéeme la nag du gis ngeen benn bu nekk ci li muy dox du lépp lañ mën a wax waaye ku ñëw rek woote ci numéro am wala nga ñëw fii <laughs> say mbir dina aju de dina faju de jërëjëf euh, fa may jeexale bokk na ci xew-xewu jamono mu di actualité ni ma koy defee saa su nekk euh, fan yi passé dalaloon nañ la ñu lay laaj ci président Ousmane Sonko euh, ba nga ci tontu waaye yëpp nag balañ cee ñëw ba ci Karim Meïssa Wade Karim Wade balaañ cee ñëw dañuy xaar ngeen déglu benn extrait bu tuuti li ci sëriñ bi waxoon bi ñu ko laajee. muy dem si élection présidentielle 2024 te ñu bëri njort nañu Ousmane Sonko mooy nekk président yow gis nga loolu. ah sëñ dëkk bi de fi mu toll nii dafa toll ci jamono yoo xam ne fi ne daana ko loo wax rek ñu am fuñ ko teg waaye man moom yàlla dogal na mbirum politique sax baaxoowuma di ci wax waaye daal bala ngaa doon bala ngaa dem final dangay bokk ci compétition bi. loolu lu muy teg bala ngaa dem final da ngay bokk ci compétition bi ñu mën a nattable da nga dem final wala doo dem final. compétition bu ma déggee de bu bokk ci condition mooy nekk candidat sëñ bi bëgg naa nga leeral maanaam nit ñi bëgg la. nga nekk fi ñu ñëpp am ci yaakaar pour nga war a doon président mën naa nekk de waaye mën naa bañ a nekk mhm. waaw ndax it Sénégalais yi fi mu toll nii da tembe danañ am du leen bett nag waaye ñi ki nga xamante ni bii am na koo xam ne bàyyiwuñ ko xel te dañ ne woon amul nationalité bokkul ci réew mi muy Karim Wade. Karim Wade mel ni mi masakata. naa la ci jox loo xamante ni bii ci wewu nga ko fare ci mën nga ko mas a déggee ñi nga xamante ni bii newoon nañ amul nationalité ci nationalité ci réew mi am na carte d'identité moo ko rakkam Singali Wade ca Kébémer la ñu war a woote ci présidentielle yi di ñëw Karim Wade day ñëw man maa la ko wax. sëñ li nga wax yéeme na de. Karim Wade dana ñëw dana posé candidat Kébémer lay wootee moog Singali Wade loolu nag tasaaroogut waaye lii dana ko tasaare lii ma la wax bindal nga teg ki ñëpp di bàyyi xel jàpp ne moo yor réew mi compétition bi damaa jàpp ne da ciy bokk ba yor réew mi. jërëjëf aja kon mu ngi noonu gannaaw ba ngeen dégloo extrait bi nag damay bëgg ñu siwaat ci li nga waxoon ndax wax ji nga waxoon yaa ngi koy dëggal ba léegi ndax bi nga koy wax it président euh, Sonko kenn jàpp ko woon actuellement mu ngi ci prison bi ndax loolu yaa ngi koy dëggal ba léegi ku bokkul ci course nan lañ ko mën a boolee mu bokk ci candidat loolu dafa mel ni am na loo gisoo naa ah. sëñ Cheikh ku ñeme ku ne dañ laa dañ laa déey mhm. xam nga ba ma ko fi wax ñu baree nga dar seen gémmiñ ndax it man mi am na ci ñoo xam ne man mii ku ne ma woon Sonko du posé candidat du doon président du ma ko gëm waaye ba ma ci gisee li ma ci gis ba génn fi waxu ñu bari dara nañ seen gémmiñ am na ku ma woo téléphone ne ma doo yàlla xamoo lu yàlla def ëllëg ma ne ko du ma yàlla de waaye yàlla moom suñu borom li xam xamle moom moo ko moo koy soob mu di ko xamal doomu adama yi te lépp lu ñu xam yàlla man du ma ci dara du ma toog place yàlla waaye suñu na ma ne ma Sonko ngeen di wax nii naan dana doon président ba xam dana bokk ci course bi bu boobaa ngeen dogoo xam dana dana dana doon président wala du ko doon léegi nag bi ma wooyee wax ma loolu ma ne ko baax na yàlla baax na amul solo nañ seetaan rek eh, biñu ne tas nañ parti bi jàpp Sonko tëj ko woo na moom fi ne nii ñi ngi jokkoo man ak moom waaw ma ne ko lépp loo gis daa am aw yoon xam nga bu fekkee ne nit mm. da wax da ngay wax te yàlla tax mais man waxuma ngir bës man li may dunde doy na ma sëkk bu ma doon jóg ngir bës man bu may dox ci xam-xam moo ma tax a jóg mm-hmm. Sonko mi fi ne nit ñu bari ñu ci bari sëriñ ci bari dañ daan génn naan ku ko laal yàqoog euh, ku ko ku ko kii ci euh, ku ko kii ci mystique da nga ko gis ak barke sëriñ Touba dañ koo jekku spécial maa la ko wax Sonko bu ñu ko jékkuutoon ci wàllu mystique li li ñu lalal euh, Sénégal waxuma la moom ci boppam waaye jëmmi Sénégal sax dañ leen a jekku ci ci mystique ndax ndax jàpp nañ ko ba yóbbu ko te buñ masaan yëngal fii adduna sépp tukki ñoom ñu de dem teg baare fee nit ñi toog defe ne ñoom ñoom jekku nañ gañe nañ ko mbaa bi ñoom ñu ngi ci ne bañ koy jël xat dammut est-ce que du question wala déggoo ma bañ koy def laal wax dammut te gars yi boo waxee ñu ne ko ko ñoom ci seen jëm ñoom ci seen Sénégal leen a jekku ci mbis te fii ne nii fi may waxee yow nii kenn du yëngal kenn du yëngal yëngal ya nga fi daan dégg bi ñu ko jàppee léegi xam nga amul du ndax gis nga benn coppite ci li nga gisoon ci moom wala mu ngi mu ngi ci ba léegi mu ngi ci prison bi ndax mën naa génn bokk kii ba jël réew mi coppite daal moom bala ma gis moom mu génn comme mi ngi ci biir man mënu ma ci wax waaye bu génnoon ma analyser mën naa la ci wax lu leer waaye fi ne mi ngi comme mi ngi ci biir ah. te fi ne ku naan zim ci des ñu ne tas nañ sa parti nga ne ci biirum kaso di wax yar xam nga ne kooku nag ñëw di ci cadre mu te te validé guñ la parrainage ko defee ko dara maanaam yàlla moom mooy dogal nag waaye man de gisaguma man président ak Sonko man waaw du neex nag am na ci nag bu ma soñoon nag man ah. personnellement moo koy doon waaye gisaguma mu doon président ci 2024 ji gisaguma ko a loolu li ma yor suñu borom nag coobareem lay doxee lu ko neex lay def waaw ci coobareem ñu jàll ci Karim Wade ndax am na loo fi waxoon dina bokk dina dem ba euh, vote ji fee di dëkkam di Kébémer cosaanu papaam ndax yaa ngi koy dëggal ba léegi. waaw loolu li ma ci def mooy ñu bari dañ ne woon Karim Wade koo xam ne amut carte dante sénégalais du ñëw ci réew mi ba naan day bokk ma ne leen ma ma leen Karim Wade dana ñëw dana bokk Kébémer lay wootee moog Singil Wade carte d'identité am génn fi may wax ak yow nii bari na groupe bi PDS yoo xam ne boo ci duggoon tey da nga ci gis sama vidéo bii ma waxoon nii. te loolu ma la waxoon moo am tey laa ko gën a confirmé loolu ma la ci wax moo am incha allahu taala day waaw day am. waaw beneen bi ci tegee élection yu tàng yu jaxasoo da ko gis ma ne élection Sénégal yi mun a yomb te yu jaxasoo lay doon président Macky Sall nee nañ Amadou Ba la jiite waaye Amadou Ba man gisuma ak président fii ci Sénégal ah, gisoo ko waaw lii ma la wax nag bàyyi ci xel plan A daal tegal na leen ko hmm. plan A Macky Sall tegal na leen plan A ci Amadou Ba dégg naa fi ci seen site bii am sëriñ bu ne bu ko seetee mu fal ko waaye du ko doon bu yow mu noppalu. moom Amadou Ba maa la ko wax 24 bi 2024 bi du doon président sénégalais du am. kon ki mu du kook du faloon keneen waaw bu seetoon keneen daal. bu waxee moo gën bu seetoon keneen man moom fi may wax ak yow nii mm. bari na ci loo xam ne lu ma dëgg sama tànk bii la ah. waaye fi mu toll nii tamit comme bu fekkee ne yàlla daa dogal ñii dañuy ñëw ci yow ñii di ñëw ci yow ñëppay ñëw ci yow ah. da ngay fexe ba yu ci bari da nga ah. waaye ki ma dégg fii mu naan Amadou Ba bu ma seetee ma fal ko te mooy doon président na na fal keneen Amadou Ba du doon président 2024 président fal na xatraayu bi bëri na gedd yi bëri na ndax du faloon Abdoulaye Daouda Diallo moom baax na wala maanaam cin bu nare neex bu baxee bu ne day xeeñ waaw bu nare ñoom ci seen biir ñoom ci seen biir dañoo tasaaroo bu fekkoon na ñi nga ànd doon na say jiital Amadou Ba xel mën a dal waaye kenn ku ne demal nga ak sa bopp waaw ñi ci penc mi nag bu ñu di ko ànd dem Amadou Ba du fi am dara. kan mu jël réew mi 2024 président. waaw président bi moom surprise lay doon. surprise oh. maanaam c'est-à-dire maanaam maanaam koo xam ne. Ah. mosu ñoo foog ne. Ah. dana doon président. mu di lëmbe comme ni gars yi. te xamal naa la ñu bëri naa la si ñaar nga bàyyi leen xel. Déthié Fall na ko bàyyi xel. ci élection yi di ñëw ak Bougane Gueye Dany bu seen parrainage jàllee Déthié Fall Bougane Gueye Dany ah. bu seen parrainage jàllee na ngeen leen bàyyi xel ci élection yi di ñëw. <laughs> du jàll ñen nga gis. déggoo ma de ah. foofu laa bu seen parrainage jàllee bu ñu leen bàyyee nu dem ah. nañ leen bàyyi xel ñoom ñaar ñooñu. bal mu bàyyi nga ñaan nga tàggatoo jërëjëf. waaw sëñ Cheikh xam nga loolu boo gisee ñu di ko ci ñambaas daa munta ñàkk ndax am na ñoo xam ne fi ne xamuñu li xew. te xam-xam la ñuy doxee rek ay werante mhm. te yëf yi mën naa bañ a deme noonu am na ci loolu nag boo seetee ba gis lu leer da nga mën a taxaw sañ ci waxtu leer waaye lii ma wax am na ci loolu des na ko leeral waaye am na ci bu caméra yi des na la ci wax suuf incha allahu taala ñu ngi leen siyaar bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah